ay kuréel yoo xam ne nag dañuy xeex ngir ak ak yelleefu doomu aadama muy ligue sénégalaise des droits humains rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ak Amnesty International ñoom nag ñoo xam ne ne am na lu toll ci eh, cent cinquante cinq ci ay doomu Sénégal yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngay dund lu métti eh, fële ca Niger gannaaw bi nga xamee ne dañ leen dàqee réewum Algérie ñu ne ñoom nag eh, soixante dix ca ñoom ñu nga fa ñuy wax Agadez 45 ñu ngi ca arlit ñuy nag euh, artu nguuru ko Sénégal ngir ñu jël ca ay euh, saafara euh, ci num mu gën a gaawee Ousmane Sonko bésu ba tey bi amal na ab déclaration de presse ca loolu nag wax na wax wax na ca ne dina doon candidat ci élection présidentielle yu deux mille vingt quatre wante nag nee na bépp membre bu Pastef boo xam ne kon bëgg na doon candidat ubbil nañ la yoon wi wante nag bu boobaa dinañ amal ay primaire ngir tànn ca euh, kenn. ba léegi Ousmane Sonko tuumaal na réewum euh, France nee na nag ñoom fi mu nekk nii ñu di def lu ñu mën pour candidature boobu ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre bañ a antu. sénégal yi nag boo moywul dinañu dundaat coupure yi nga xam ne euh, bëri woon na loolu fan yi ñu génn li ko waral nag moom mooy euh, kër gi di Sénélec euh, dañ koy yoreel ay koppar lu bëri sax deux cent milliards ci suñuy koppar ñu ne nag ña ko yoreel état bi la ak collectivité territoriale yi ñu ne nag bokk na ca TER Sen'Eau ak université yi bokk nañ kon si ñu ko yoreel koppar. yu takku yooyu wante nag Senelec itam dafa yoreel ay koppar ñi nga xam ne ñoom ñooy producteur privé indépendant yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom ci wàllum courant te ñooñu nag fi mu nekk nii ñooy laaj seeni koppar boo maywul nag euh, dinañ banque seeni yoxo te buñ ko banquee nag coupure yi dina siwaat xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ca euh, réewum euh, Algérie foofa nag ay lakk yu métti xam ngeen dafa am ca àll ba euh, ci ay àll kon ba tax nag euh, lu bëri ci ay nit euh, trent 38 ñàkk seen bakkan lu toll it ci 200 am ci ay gaañu gaañu ba tey sax ci alxames bi ñi nga xam ne ñoom ñooy sapeur pompier yi ñu ngi doon xeex ak lakk gi ngir fay ko. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon moom la ñuy jeexalee muy nag ca Afghanistan ca Kaboul. dafa am daal ab euh, attaque boo xam ne kon ay nit ñoo ko amal jëmale ko ci ab euh, juma ñu ne nag euh, mosquée sunnite bi ñuy wax si Siddiqiya kon foofu lañ ko amale nekk ci noor wala boog nekk ci nord west kon bu capital ba di Afghanistan boobule attaque nag bañ ko amalee lu toll ci vingt et un personnes ñàkk nañ ci seen bakan amit 33 yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu bu sukkandikoo ci ab bilan boo xam ne waa police ñoom ñoo ko joxe ci AFP. lii la ñu indiloon tey ci ay xibaar rafet seen teewlu di leen jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.